xoote baax na ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jàmm mbégte di ñëwaat ci seen première chaîne de télévision privée du Sénégal euh, bu ngeen gisee nag fi nga xamante ne fii la nekk mu di Touba euh, Mbacké euh, bu ñu fi taxawee i tamit kàddu yu ñuy njëkk a yëkkati bokk na ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun saa yuñ ko waxee nag ngeen war a xam ni am na ku nga xamante ni moo wuy ji suñu borom te ki wuy ji suñu borom di nit ku nga xamante ni dimension wam kenn dootu ko natable ci Sénégal ci Afrique naka noonu ci àddina Serigne Sidi bu kër Serigne Touba dëddu bi mu dëddoo naka ak léegi xam ngeen ni euh, ñëpp xel yeeg xol yeeg jëmm yeeg yëpp a ngi fii nga xamante ne moom moo di ci Touba Mbacké fi ñu nekk nag fii ci Touba mooy euh, kër gi nga xamante ne xalif bu yees bu yoonu murit di Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou euh, fii la nekk ba tax na rek gis ngeen ko ni ñu xëyee tey àjjuma ji di ñaan bi nga xamante ne moom la ñu jagleel tey Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mi dëddu mu mel ni daal ñëpp ñëw nañu fi nga xamante ne moom moo di ci euh, Touba ni leen ko waxee ci kër xalif bi ñu nekk ay kilifa yu bëri euh, ñu ngi fi ku ci nekk di ñëw di indi sa euh, njaal ki nga xamante ne moom moo di Serigne Mountakha nekk jamono ji xalif bu yoonu Mouride ba tax na rek dañuy daal jànd ak Bécaye Ndiaye dugg ci biir xool kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ngir mën a waxtaan ak ñoom ci lii nga xamante ni moom mooy xew-xew mag bi am file ci Touba dégg ngeen ko wala ni ngeen di ko gisee euh, gis ngeen ko fi nag accès bi du yomb torop parce que ñu ngi fi nga xamante ne ni euh, moom moo di fii ci kër Serigne Mountakha xalif bu yoonu murid di juróom-ñetteelu xalifu yoonu kër Serigne Touba gis ngeen voilà gis nañ fi nag ay kilifa yu nga xamante ñoom lañu bëgg a euh, waxtaanal. demoon la ma gën a ah dañ bi. bu baax bi am nañu mbégte fekk la fii ci kër Serigne Mountakha euh, ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga ak téléspectateur de visite. Ah, kii kaddu yu gàtt lay doon nuyoo rek lay doon ak dalal taalibe yëpp ak xam ne tey. xew-xew bi ñu nekk bu réy la bu jafe la bu diis la ndax Serigne Touba dëddunu meneen Serigne Touba di ñëw ñoo bokk benn mission bokk benn liggéey te ñoom ñëpp seen liggéey mooy taxawul Serigne Touba taalibe yi liggéeyal Serigne Touba ci taalibe yi lislaam ji yaatu ñëpp ànd bi ñu bokk liggéeyal yàlla loolu mooy liggéey moo doon liggéey Serigne Sidi Mokhtar doon liggéey ña ko jiitoon Serigne Mountakha ci loolu rek la nekkoon ci la fas yéene continuer ci ñun ñii ay ndawam yu koy liggéeyal tam loolu la ñuy jàngal loolu la ñuy wone am ànd ci bennoo an ànd ci jàmm an ànd ci lépp lu tax àdduna si baax Sénégal baax ci bennoo rafetal suñuy xol boole ko loolu la ñuy liggéeyal loolu jàngal loolu la ñu fas yéene xëj na sax du yomb ñu wax euh, kan mooy Serigne Mountakha ndax euh, bëri na qualificatif yu ko nit yi jox macha allah ndax dimension bi moom. liñ ci xam xajul suñu temps bépp mënuñu ko wax lépp. tey gën naa xat sëñ Mountakha ku baax la jaamu yàlla jaamukatu yàlla la taalibe bi sëñ Touba la ba yéen a jullit ñëpp jàmm di liggéeyal lislaam jullit ñëpp bëgg ànd ak jullit ñëpp te yàlla tax tàllal na ñëpp loxo mi ngi ci lu baax la mi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni moom la euh, yëkkati euh, jamale ko ci Serigne Mountakha di xalif général bu bees di yoonu euh, Mouride moom moo toog nag ci jal gi wax nañ leen ko sànq mooy juróom-ñetteelu xalifu kër Serigne Touba waaye keneen ku ñu jàkkaarlool itamit di kilifa ci kër gi kilifa itamit ci réew mi moom Serigne Khadima Diop nekkoon fi ministre de la République waaye nag doon doom itamit ci kër gi doon jarbaat ci ki nga xamante ne fi mu toll ni moom mooy xalif ci yoonu Mouride di sëriñ Mountakha Mbacké sëñ Khadim mi ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi leen di fay. nañu mbégte fekk la fi nga xamante ni moom moo di ci sëriña euh, euh, Serigne Mountakha moom Serigne Touba di juróom-ñetteelu euh, xalif bu yoonu Mouride lan mooy kàddu yi nga xamante ni moom ngay yëkkati ngir jagleel ko Sénégalais yi lay. Ah, loolu xëy na ñun amaguñu sañ-sañ mu wax ci waaye li ñuy njëkk a rek mooy delluwaat siyaare. ki nga xam ne moo fi jógee muy sëñ Sidi Muxtaar mu liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bu rëy di ñaan suñu borom yàlla na yàlla gërëm liggéeyam lépp taas ñu ci barkeem euh, sëñ Muntaxa wuutu ci saayir sëñ Sidi Muxtaar lu fi mën a dégg la ndax liggéey bi doon liggéey sëñ Sidi daf ko ca joxoon cër boo xam ne jàpp naa si cëralu ko woon kenn ci li mu bokkoon moom di ko liggéey kon nag day wone ne sëñ Tuubaa genn càll la la fu mu toll rek bu genn ceen boo jógee ci genn jàll ci geneen kon sëñ Sidi Muxtaar sëñ Muntaxa noonu la ñu kon li mu nekkoon mosu cee jóg mooy liggéeyal maam sëñ Touba ci keppaaru xalifa xulafaa yi jiitu woon yëpp loolee lay wéyal lii fekk na ko ci du lu yees moom fi la ko mas a fekk ñun ñi nga xam ne ba ñu doonee tuut tànk tey la nekk ak moom yàlla laay seereel na dara mosu soppi ko ci moom nii rek la ma sa mel lool rek loolu rek wax nii rek la ma sa mel kon daal rafet bi ñu doon liggéey dana ko wéyal te ko ci ñaanal suñu borom mu yokk aw fanam yokk wéram te may ko ci ndam ba laq ci ngërëmul Seexul ak ngërëmul yow nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax ay jëriñam moom Serigne Mountakha uh, mu uh, mel ni daal bokk nga itamit ci doomu aadama yi nga xamante ni uh, daanaka war ngeen ñoo mën a wax qualité yi nga xamante ne moom la ñuy dégg yëpp ci xalif bu yees bu yoonu murit waaye yenn bi nga xamante ni moom moo koy xaar tamit njoxtu nañ ñi naru la doon lu yomb. waaw euh, sëñ Mountakha moom defe naa ne naqari wu tabax waa Sénégal tàmbalee ci yow tàmbalee ci man li ñëpp gën a xam ci moom mooy woyof ak nu nga topp kilifa ragal yàlla fi mu ne nga gis mbooloo mi bari ni ma ko nit waxee léegi adduna bi fa nga toog di ko diglu ma nga ci ay téeréem di jàngatul na bi te loolu lan xam ne moom saa su euh, constance ci baatu nasaraan daal moom laa koy qualifié constance maanaam mooy koo xam ne ni nu ko gisee rek la ma sa mel jaamu yàlla liggéey digle jaamu yàlla digle liggéey toppe nag ndigal moom fu mu ko fekk du ko fa bàyyi loolu rek la ma sa ah, topp na ñi ko jiitu woon ñëpp nag ba suñu borom togal tey ñëpp war koo topp ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg suñu kanam ñun ñëpp ñëpp ñëpp yàgg si ginnaawam liggéeyal ko mu liggéeyal sëñ Tuubaa ba laq ngërëmul sëñ Tuubaa ba ba ban laqaale ngërëmul sëñ Tuubaa ci moom waaye moom constance rek laa koy qualifié mooy nii mu mel rek nii ngeen xam ci moom muy woyefam gi ak nu ngoo liggéeyam gi ak topp ndigalam gi ak bëgg sëñ Tuubaa gi liggéeyal sëñ Tuubaa gi noonu ba ñuy tut tànk ba tey ci moom la waaye noonu rek am donc gërëm nañ la bu baax dégg ngeen ko euh, Bécaye ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, seetaan ñëpp la première chaîne de télévision privée du Sénégal Constance jàpp nañ ni mooy le moo idéal pour mën a qualifier xalif bu yees bu yoonu murit moom euh, Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou moom Serigne Touba mu mel ni daal ni ma leen ko waxee sànq ñi ngi ci këram nag di xaar en attendant mu génn xam ngeen ni tey la ajuma julli ajuma bi itamit xëj na ñu bëri ñu ngi ko ci xaar waaye ay kàddoom tamit sénégalais yu bëri ñu ngi koy euh, xaar ginnaaw bi mu wutoo euh, si di Mokhtar Mbacke nekkoon juróom-ñaareelu xalif bu euh, Serigne Touba def juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ci bopp xilaafa gi moom sax niñ ko waxee boobu ak léegi jël li nga xam ne moom moo di sooroo li jëlee ko ci juróom yóbbu ko ba ci juróom ñaar bi muy gane si àddina yi tamit juróom-ñaari weer la woon ci at moomule 1924 la gane si woon àddina moom Serigne Sidi Mokhtar Mbacke mi ngi dëddu gis ngeen ko ni mardi euh, ci atuma 2018 gi nga xamante ne ci euh, la ñu euh, nekk di ñaan rek borom bi taas ñu ci barkeem fépp ci kanam tuuti ñu ñëwaat ngir dëgtalaat leen yeneen waxtaan wala yeneen kilifa ci yeneen i jotaay fi nga xamante ne moom moo di la première chaîne de télévision privée du Sénégal gis ngeen ko ni taxawaat nañ ñi tamit ak keneen ku nga xamante ni ñu ngi ko fekk moom tamit ci kër Serigne Mountakha Mbacké di xalifa général des Mourides juróom ñetteel bi ñoom mel na ni ñoo yor lépp lu nekk ci wàllu organisation défilé ci kër gi ndax gis ngeen dugg beeg génn bi dem beeg dikk bi ak ñi gan ñi takkoo macha allah ñu nuyu ko rek bàyyi ko mu nuyu ak Sénégalais yi lay seetaan ñu ngi leen nuyu bu baax. loo wax luñ ci seede ngay mën a wax mooy daal taal bi sëñ Tuubaa ngi nii ku gëm sëñ Tuubaa ku am wóllëre ku mën a toppee ku ñu am yaakaar nii eh, nun ñii suñu waajur sax ba ñu gën a jamono. wala ba ñu ànd ak moom ni ñu ko xamee ba ñun ñii judd ñu din tuddee ñu ànd moom itam lii rek lañ ci mos a xam xanaa yéex xam ak teel waaye moom mos la soppiku taalib Sëñ Tuubaa daal mi nii as gor a ngi as wëllëree ngi nii loolu daal lañ ci mën a seede ndax loolu rek lañ ci xam ci wàllu jikko noonu tam fi ñu ko féete muy liggéey bi xam da ko yëkkati dénk ko mu jëm ci wàllu décoration marocain bi xam ni moom laay def mu jëlee ma Italie ma ñëw li ma ko ci sant mooy alali sëñ Touba mu jël ko jox njaboot sëñ yi ñu bari dañ ko ci yéem ndax liggéey bi mu ma jox muy jumaa ji ak yu mag yii xam gi xam ni bu ko yettum ñax waral njaboot sëñ Touba gi ñoo ko yetti mu jël alal jox borom ñu bari sax ñoo ngi ko ci roy naa ñëpp noonu lañu war a mel ndax loolu day dooleel yoon wi xanaa taalibi gi ak melo waaye xam-xam moom mi ngi fi kon nag jot na ñu xam ne sëñ Touba lépp daj na ci ay loxoom. ñoo ngi leen di sant yéen di leen gërëm yéen ñii ndax seenu njàmbaar àddina sépp a ko seede bu ñu leen wooyee ñëw bu ñu leen wóol ngeen ñëw bu ñu leen fayee da ngeen xam ne da ngeen am waar ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ngeen xam ko nangu ko euh, wax daa ñoo ngi leen ci sant ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi média da ci am solo lool ni ngeen la suturale yoon wi euh, sàmm ko di di di yëgle njàmbaar sëñ Tuubaa loolu ñu bari wax dëgg yàlla seede nañ ko yéen télévision bi te man yàlla rek laay waxal ndax man si woorum sëñ Tuubaa rek laa koy def. man ku wax Cheikh Samb laa man ci kër gi laa juddu sama baay sëñ Basiru la toppoon man ma judd ci kër gi xaw ma fenn fu sëñ Muntaxa maanaam tey dañu la fekk rek waaye man daal fas ko yéene moo tax ma nekk ci kër gi xaw ma fenn fu dul moom nag ba ma ba ma ko joxee huit ans am ba nekk ci moom tey. kon nag nit yéen bi ko yàlla yéen yàlla na woyof yàlla na ko jàpp sëñ Muntaxa moom ku aw tànkam doo doo doo juum ndax moom nangoon naa toppe xamul woon dañ na sa kilifa da nga koy jox sa bopp te bàyyi ko boppam moom la doon doxe itam kilifa da nga koy jox sa bopp te bàyyi ko bopp sëñ Muntaxa moom la doon doxalee xalifa yi fi nekk yëpp am na seen ngërëm ba tey ji mu tegu ci loxoom yaakaar naa ne du am benn jafe-jafe ak jërëjëf asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu